kenn mënut a waxat ci xam-xam wala nga wax ci diine rawatina ci yoon wi te jëloo ko référence daanaka mooy référence yoon wi ci Sëñ Tuubaa fi mu toll nii kon loolu nekk na lu rëy rëy lu am solo loo xam ne bisam bu ñëwee day bisu boo xam ne dañ ciy jàng li wax ne ci bis yu mel nii bu ñëwee dafa war a nekk bis yoo xam ne dañ nit ñi dañ cee war di jàng waaye du rekk ñëw naa ci màggal ga dellu naa déedéet ku mel ni sëñ Abdou ku ñëw ci moom boo delloo fa nga bàyyi ko war ngaa yóbbaale sëriñ sëriñ ba mooy jikko yi mu amoon ni mu doon dunde li mu nekkee woon li mu doon digle li mu doon tere loole nga fexe ba yóbbaale ko fa nga jëm muy sëriñ ba foofu ñu gis ne màggal gu dikk danga jël ci moom ay jikko màggal gu ji bu jot da jël ci moom ay valeur màggal bu jot da jël ci moom aw doxin loolu ku ko def bu yàggee ah, bu màggal yi yàggee yow màggal yi day doon bind booy jàngee waaye doon doon rek màggal boo xam ne danga nga koy def rek folklore mooy dama ko dikk ndax loolu lañ ci jublu bëgg nit ñi xamee ci jàngee ci loolu lañ jublu ci bis yu mel nii ah, ak yu niroog moom kon moom ab jàngalekat lool woon sëñ Abdou Lahad lépp moom jàngalekat la woon waxtaanu sëñ Abdou ngay dégg ñu di ko wax waxtaanu Sëñ Abdou laat waxtaanu Sëñ Abdou Lahad Sëñ Abdou Lahad waxtaanutun Sëñ Abdou Lahad da doon jàngale fa mag mu mas a ñëw ci Sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke man dey bis bu set maa ngi déglu sa waxtaan yi sëñ bi ne ko déet man de waxtaanu ma aw mu jot bay waxtaan del wax bis bu set maa ngi dégg li ngay jàngale man li may def am njàngale la waaye du waxtaan ndax man aw ma jot bay waxtaan sëñ Abdou Lahad it mboolem xutba yi ñuy dégg ci moom yëpp am njàngale la benn bu ci ne leçon la boo xam ne buñ ko toppee ci jamono ba mu ko waxee contexte ba mu ko waxee mën na si caa jëriñu ba faw dundam képp ab ay ay ay ay duruus la ay ay jàngal la kon bis bi bu dikkee ñuy fàttaliku ku màggee noonu ku tedd noonu muy bokk ci bis yi gën a màgg ci yoonu murit hmm, waaye des na bàyyi xel yooyu mu fi bàyyi tey liggéey bu màgg bu tedd bii mu fi bàyyi rek di daara yi kaamil ji rek doy na waxuma yeneen de waaye lim liggéey ci wàllu xam-xam ci wàllu googu nga xam ne tey loolu rek dafa nekk lu rëy rëy loo xam ne adduna sëpp a ngi jëriñu gone yi nga xam ne génération lañ muy door jóg xamuñu woon loolu ndax mbiru xam-xam di ci gënoon a jafe mooy foo jàngee ak téere boo jàngee yaar yooyu moo ci gën a jafe te yaar yooyu boobu amul doomu am xam-xam boo amul foo jàngee amoo ku la jàngal wala nga am ku la jàngal mais amoo téere boo jàngee te téere dafa jafe surtout téere yi nga xam ne mooy téere boo xam ne am na solo xam ne boo ko xale bii jàng bu ko amutoon euh, boo ko jënd nga xam ne boo ko jënd du am xam-xam kon dina doy waar. bari na ñu bari lool ñoo xam ne fañ waroon na egg ci xam-xam la fa tee egg mooy téere ak fuñ jàngee moo leen gàllankoor béyguñu fi loolu lépp nag mu yombal ko ba nga xam ne tey jii. xale yaa ngi dem bay am yi nga fii dégg yëpp tey ñuy jàng ba am baccalauréat mbaa ñuy jàng ba nekk inspecteur mbaa ñu jàng ba nekk say sax ay professeur tey e bu ñu amutoon ay euh, massager ay yu ñuy delloo yu mel nii li nekk fii tey mu def ko fi bàyyi ko fi ci lépp mu def ko ngir jëmmi Seexul Xadim kon yëf yi dana demee neneen nu bokkut ak nii mu demee fi mu toll yombal na ko bu baax a baax nag loolu ay lenn la rek ci ay jëfam buñ fi nekkoon bëgg wax ay jëfam yëpp rek daanaka mën nañ fay yendu mën nañ fay farante du sotti li mu yar nit ñi rek yar bi mu yar doomu aadama yi rek doy na xilaafam gépp yar na ci nit ñi nit ñi am na neneen nuñ meloon ñun ñi nga xam ne ay fi dañu màggee toll fi ñu toll eh, xam nañ bi mu fi ñëw nu dëkk bi demee woon xam nañ nit ñi demee woon xam nañu nit ñi nan lañ doon xalaatee waaye ab diir bu gàtt nit ñi soppi nañ seen xalaat diir bu gàtt gone surtout ko xale yi bu soppi nañ seen i xalaat mu defaat ci ñoom jom may wax ne sëñ laat jom ji def ci gone yi rek ak fulla ji ak rek doyoon na sëg benn jëfam boo seet rek doy na doyoon na sëg gone yu bari ci jamono yi sëñ la leen yàlla defal jom ñuy jóg ñuy jàngi ñuy liggéey te yaar yooyu moo yor am réew moo yor diine te bi mu fi dikkee ñaar yooyu ñu bari ci lañ amee jom génn réew mi dem liggéey ñu bari ci lañ amee jom génn réew ñu dem jàngi te yaar yooyu kat moo yor diine ji moo yor réew mi mooy xam-xam ak liggéey won ñëpp ne leen ñaari yoon yooyu rek mu def moo fi al ilmu wal amal al ilmu wal amalu jawharaani saalixi daarayni ya jubaani yaar yooyu rek moo fi am loolu nag moom la nu teg ñaari tànkam teg loolu ko ci ba nëgëni si kon yàlla na ko yàlla fayal bisam bii day bis la bu yaakaaru boo xam ne day eh, lu ci nit amul rek ci sa pas-pas la waaw bisam bii lépp lu nit amul ci bisam bii rek ci sa pas-pas la yow waaw moom nag li muy bari nit nag taw bi nag li muy bari bari dox ku amul ndab doo taataan ndabul jullit nag mooy pas-pasam nit ko am pas-pas mën naa am ci lu ne moom ci boppam daana ko jàngale daana wax ne pas-pas ndab la ndab nag mooy tey mi ngi taw taw bi baawaan waaye boo amul ndab kat booy dem doyum dara lu baax it li muy yaatu lépp ak li ko sunu borom di yaatal lépp la lay cay may dara mooy nga am pas-pas boo dikkee di màggal si indaaleel pas-pas loo fi def amul pas-pas ndax boo amul pas-pas euh, la nga fay jëlee du bari kon yàlla ni ko yàlla defal defal ko ñëpp teggi ni ziare yi ñu gën koo yokk ci jumaa ji ci sëriñ bi ci lépp ndax ziare kat dafa am solo ba waaye nag na koy defee moo ëpp solo ni nga xam ne léegi gis nañ nit ñi xaw koo mel ci bu ñuy ziare nga xam ne du am benn discipline du am benn yar du am dara coow laak kër kër ji loolu day yàq dalay yàqal yow mi siyaare parce que alxuraan yi wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lu mu waxoon ci yonent bi rek walaabal na ci ñi ko fi lu waxoon ci jëm yonent bi rek walaabal na ci ñi ko fi wut laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi da ngeen wattandiku di yëkkati seen i kàddu ci kanam yonent bi wala bil xawli ka jahri baadikum baadin di di wax mel ni da ngeen di wax ak seen i mu ne loolu yàlla neen loolu lu bu ngeen ko defee lu mu leen di indil an tahbata amalukum la ngeen fa naroon amee wala sax la ngeen fa amoon ba am ko ba noppi da ngeen koy ñàkk waxuma ko amaat fa dara sax de waaye la fa amoon sax danga koy ñàkk ndax si lislaam moom lépp orma la ak yar ak tegin amut la leen waxtu wu yaar yooyu amul rek li ngay wut moom mënoo koo am wala boo ko amee da nga koy kon loolu itam nañ ko yokk bu baax a baax a baax te mi ngi tàmbali nag di xaw a doy waar ba nga te mënoon naa nekk ndax lépp buñ ko defee ci yar ak teggin rek ak di léppay sotti te coow du am coono sax du kon ñu ngi koy dénk nit ñi bu baax